instauré justice fii mm. ñun ñoo war a def suñu justice bopp parce que ah dañoo jàpp ni Sénégal fii am na justice am na ay juge yu baax am na ay magistrat yi jàng comme magistrat yooyu nekk union comment dirais-je CEDEAO pourquoi lan moo leen empêché léegi def liggéey bu baax mm. voilà l'interrogation actuellement voilà sénégalais lu ñuy jooy actuellement Mm. c'est clair nekkul ay union africaine nekkul l'ONU nekkul CEDEAO mooy ñëw defar mm. Sénégal mm. encore une fois nañu am suñu fulla defar suñu Sénégal Sénégal ñun ñëpp mën nañu ko defar bu ñu boolooyee ñu bañ a jàppante comme ay ennemis ci politique bi c'est clair dëkk boo dem am na politique mais politique bu ñuy def Sénégal moo baaxul ku dàq sa morom saaga ci réseaux sociaux yi nga saaga ku dàkk sa morom xaw yi sutura jàmbur nga xaw yi sutura jàmbur mais y politique pour sommes là au Sénégal en fait hmm. Hmm. alors nous allons les exactement exactement à forme euh, si Walfadjri euh, ginnaaw ba ki nga xam modi, moo di Babacar Diagne daal coupé euh, justement si événement yu juin yi lu mu ko doon reproché ñu dafa doon wane li nga xam nekk manifestation yi un partout à travers le pays ma ni kon Walfadjri nag saisiroon na li nga xam nekk mu di la Cour suprême jàppale itam Cour suprême vient de désavouer le CNRA ma ni Cour suprême jox na li nga xam nekk moo di Walfadjri dëgg kase na décision bi nga xam ne itam CNRA jëloon na niki li nga xam nekk juin par rapport ak couverture médiatique bi nga ni itam Walf manifestation yi fa nga itam mooy ko euh, donc en procédant ainsi le juge pointe une violation de la loi pour rectifier le président de Sénat Babacar euh, de la Sénéra Babacar Diagne euh, ordonnateur de la mesure ma juge bi nag dal na bu baax a si kaw ki nga xam nekk moo Babacar Diagne ginnaaw ba mu daal benn pour ñu daal signal walfadjiri euh, pendant un mois donc li nga xam que Cour suprême euh, joxna deug li nga xam nekk modi di euh, Walfadjri seen moom kon ki nga Cour suprême mon ngi koy daal li nga xam exactement sénégalais ñiy xaar peut-être des sanctions contre li nga xam modi moo et que ce n'est si par la il a subi les sanctions si ça c'est leen de signal pendant un mois et que mu est ay conditions yu difficiles pour que li nga xam que moo di employé daal ay salaires exactement donc aujourd'hui Cour suprême jox na dëgg li nga xam nekk moo di euh peut-on s'attendre justement à des sanctions contre le Sénégal xam nga euh, tamit ñen bayyi suñu joxé ndigal ñu tëj signal tëj signal dafa yom trop Sénégal euh dañuy tëj signal euh, kenn comprendre quand même. c'est que seigne Fallou bo ma déggul loolu la joggé wax ni sank mm, mm. nakul dañuy xaar kenen pour mu ñëw défar ñu suñu justice. ñun am nañu ay magistrat yu ba encore li encore une fois ñëw na wane ni que ñun am nañu ay magistrat yu baax que ça soit la forme de la décision rendue par le juge, il faut l'appliquer. Hmm. Il faut que nous respections. Je crois que euh, le président de la République, à travers message à la nation, hmm. il va faire tout pour que les, les décisions de justice soient respectées dans ce pays. Hmm. Maintenant, même nous, nous, nous, pour en fait respecter les décisions de justice tay cour suprême lu mu joxee xamal Sénat ki CNRA ni que kii moo am deug sa kaw mais encore une fois c'est une avancée significative ci wàllum mm. ci mm. suñu walum justice mm. c'est pas à chaque fois écoutez c'est pas je ne suis pas en train de défendre fadjiri mais fadjiri moy média bu ñu upp bo xamanteni ne tej nañ ko fi ay yoon yoon wax ban média le gëna tej fi tëj wal fadjiri mais mais mané que wal fadjiri ligne éditoriale am yeneen médias yi amuñu même ligne éditoriale même bi bu fekkee ab day am différence tuuti. Hmm. mais yenen yi dañuy def ko wala fajiri. Hmm. seen TV il faisait la même chose mais pourquoi ñom ñaari média yoy lañuy ñuy moy mooy TV lañuy ñuy wala wala fajiri si c'est pas Jean c'est Paul c'est quoi. <laughs> te ñu gis fii ay série de télévision yo xamantene c'est contre les mœurs daw nañu fi télé est-ce que gis nañu fi télé. Mm. Mm. on de la série Cœur brisé. Mm. les femmes là se comportent lu veut man maa ngi dëgg ñi tu di saga ay mais sérieux on continue de regarder ces séries là où est CNRA où est CNRA tay wal Walfadjri bu demee. té ñom dañu bañoon xéssal mo taxu ñu tej señ mais les produits euh, xeesal euh, mais arrêtez arrêtez euh, produit xéssal ba légui ñu koy publicité les produits à quasi. je vais te dire une chose señ fallo bi ah, nga wara comprendre. ay produits ay crème naturelle bi ngay gis les les deux les les jeunes dames là ñu koy diwoo. li ñi woyé ay crème de beauté tout ça la les 95% de ces crèmes là dañu rax ak xéssal donc teree publier publié ce qui moi manam ñom compte du am mais c'est ça la réalité en fait Moi, mënu ñu leen empêcher publier ces qui produit là parce que dara produit yoy ñuy dara ci sen sen sen sen sen gafaga hmm. je ne suis pas encore encore en train de faire la promotion de ces produits là Nous la bo produit mënoon nga xeex ak leneen ak leneen. Hmm. parce que gis nañu fii réseaux sociaux yi lu ne gi nga xam yi sutura nit gis fi ay séries télévisées ñoom seen yooyu di ko hmm. di ko dawal ci hmm. ay yoo xamante ne c'est contre à l'encontre des mœurs doo fi gis CNRA mu tëj ay chaîne boo xamante ne peut-être dañoo jàpp ni ku ko ku ko moom dafay liggéeyal nguur gi. alors c'est clair musoo gis CNRA mu àddu ci loolu. ñoom wal fajiri la ñuy yab ak seen TV. je ne pas en encore une fois de défendre ces médias mais dama ne en vingt et unième siècle au Sénégal rawatina deux mille vingt trois dafa xeewi ngay tëj ay chaînes. dafa xewi trop suñu lolu dafa am recul médiatique. dafa bokk ci sax lu reculer la presse sénégalaise. té presse sénégalaise au niveau international jëloo place bu baax. Mm. mais aujourd'hui ñu melni ay Kenya ay kii yépp raw nañu. Mm. parce que fi la gis dañuy jékki-jékki rek autorité bi joxé ben ordre ñu tëj ñu tëj signal signal signal télé. Mm. au nom de quoi melni si télé bobu c'est ennemi du ennemi c'est le douce ennemi mais ah attends eh, eh, RTS est-ce que Moussa fi opposant le wax RTS ban opposant le le le le le le campagne mais pourtant RTS c'est la télé de tout le monde pourtant RTS tay ku RTS day weng ci sa côté. mais ku là c'est contre la loi même pourtant eux ils parlent pas de ça. non non non non je ne suis pas d'accord. RTS c'est pour tout le monde. RTS c'est pas non non non non non non. déedéet non non non Enfin, c'est ligne éditoriale. Sénégalais euh, lu ñu war c'est non RTS warul am ligne éditoriale. buy far ci ngour mais c'est le euh, non déglu ma RTS c'est pour tout le monde. mais dafa nek au service du public. Dédé. le service. yo tu n'es pas du public. Mm. nous tous on n'est pas état ñan pas fay RTS c'est pas l'argent du contribuable ñoy fay RTS RTS c'est une salle privée L'on nga bëgg a wax pas une chaîne privée. Mais pourquoi elle... Non, attends, doublement. Euh, c'est-à-dire que... Euh, euh, c'est-à-dire que... partie de son journal est consacrée justement aux inaugurations. RTS. le président Macky C'est-à-dire que d'abord ça c'est pas RTS. D'abord je veux dire que. Mm-hmm. mais RTS c'est une ligne éditoriale. fii waruñu tëj waruñu tëj benn média parce que dañoo gis ligne éditoriale am lii ak lii. Mm. mais bu ñu jëlee ci cas boobu dañuy tooñ média yi parce que c'est ce que je veux expliquer pour nga comprendre bu ñu jëlee ligne éditoriale parce que Walfadjri dafay wàcc ci mbedd bi di filmer ay ay comment des informations à temps réel pour les sénégalais que lii moo xew ci mbedd réellement. Mm, mm. mais pourtant bu ñu tëjee Walfadjri ci loolu nous nañ tëj RTS parce que RTS day le parti pris. tey propagande. oui mais RTS day propagande le parti au pouvoir mais pourquoi nous avons àddu ci RTS alors que RTS bu defee loolu dafay wàcc parce que c'est une chaîne publique C'est pour tous les Sénégalais. RTS Warna Dem dit couvrir les, manifest les, les manifestations comme tout le monde. RTS warna dem di couvrir les comment dire les meetings des opposants là mu koy teg en direct pourquoi eh, parce que RTS opposants yooyu daño bok ci sen impôt lu ñuy fay eh, les agents de la RTS pourquoi duñ koy def ñun foofu lañuy waxé waxee waxuñu ni que RTS eh, kii nii mais RTS waru faral fen dafa wara couvrir ñep voilà alors euh, ñu daal di jàll sans plus tarder euh, li nga xam ni itam peut-être euh, pas mal si yéen a koy daal di xaara ni par rapport au euh, ministère de la justice ma qui n'a ki n'a xam modi moo di n'a que na li nga xam les procureurs fana nga modi ni itam moo au ministère euh, de la justice ma n'a que nag le di fonction lu yàggul dara la nouvelle garde des Sceaux a su captiver l'assistance en lançant avec humour manikon c'est commencement bi nag dafa euh, bonjour à tous je suis Aïssata Sal, garde des Sceaux ministre de la justice non la daal di commencer daal li nga l'ensemble des procureurs

jàppaleen itam démb réunion bi la ko daal di sababoon mooy daal di euh, li nga xam nekk moo di tissewaat les liens